ciy rooy sunu mbég leer ja day niroog weer ba baay bay bëgg a dem géej la feeñ ci duniya atum jëy sësi maa jëy tubaab yu bon yaa ba baay bay bëgg a dem géej la feeñ ci duniya atum jëy sësi moo jëy tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jox. sëñ Bassirou daal boo bëggoon a xam kan mooy sëñ Bassirou daal danga naan mooy yoon bi mooy yoon bi ndax yoon wi kat bu ñu waxee yoon wi lépp mooy géej gi te sëñ Bassirou mooy géej gi yoon wi bu ñu waxoon yoon wi mënoo ci génn njëriñ te sëñ Bassirou mooy njëriñ. makaarim axlaaq adabul mardi jikko ju rafet jàng ak xam-xam ak tarbiya loolu moom kafu ci réew ci moo doon moo doon moo ku nekk jàmbaar da nga yaafus maanaam sëriñ bi dafa yaafus dafa yaafus loolu mboolem ñi nekkoon ci batam sëñ basirum kajoor mooy sëñ basirum njàmbur mooy sëñ basirum saalum daanaka benn model rek la amoon kenn la woon koo xam ne maanaam li ci gën a am solo rek mooy xam nga nit ku nit ku bëgg nit xam nga dafa dafa am solo maanaam nit ku bëgg nit rek am yërmande bëgg nit rek boo ko xasee def daa nekk loolu day day day day day làmb jikko yu bari ndax nit ki boo ko xasee bëgg rek yërëm rek lu baax rek nga koy defal. Sénégal wet goo ko jaar foofu dem da nga fa fekk toolu sëñ Bassirou yu mu sosal boppam toj ko walla bu fekkee sosul dëkk ba toj ko it da nga fekk kër sirub turwa lala moo dégal na lislaam ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ci gàddaay gi bi Serigne Touba Xarim Rasool dooree tukki bi ci géej gi dëddug njabootam dëgmal boroomam wetili kopp sangam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ne fa mu jëm ndam ak mbeg rek la fay jëlee taxoon mu wax ay ndénkaane ci gan gi war a feeñ gannaawam ne bu dee góor nañ ko duppee Cheikh Mouhamadul Bachir bu dee jigéen soxna Khadija gërëm nañ ma ci dem gi ma ñëw gërëm leen keroog daam dana teeteet na ñëpp bu bëgg leen di Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh al jàpp naa ne doy na sëkk aw tagg ñu ne diw doomi Serigne Touba. na Faati Madu Maam mi ngi xam ne moo ko meññi sëñ Madu Maam Diop jur ko euh, sëñ kokki euh, Madu Faaxu Diop jur ko di taawam njege di taawam Matar Maam Matar Ndumbe Matar Ndumbe sàmm ñu di ko topp ba muy lu sori wax nañ ne ay shérif lañu wala lu mu ci mën a doon ñu ngi jóge ci penku daal. donte njabootam gépp ku ci ne boo ko toppoon ci waajuru mu jigéen dangay dem ba mu sës si mag moo xam ne dafay bokk ci magi réew mi ñañu woon ci xam-xam ak diine ak ngor ñu mën koo tagg ca googale wet waaye sëriñ bi dafa nëbbu lépp sëriñ bi dafa doy lépp sëriñ bi dafa ëpp doole lépp. Cheikh Mahamadou Bassir mi nga xam ne mi ngi feeñe ci dëkk bu ñuy wax Gàllayeel ni ko Cheikh Mahamadou Moustapha waxe radiyallahu taala anhuma ci way juróom boobu nga xam ne mooy soxna Fatima du maam nga xam ne ci dëkk ci borom xam-xam bu mag a mag di nitu yàlla ko mag euh, ku ñuy wax Cheikh Mokhtar Ndoumbé Diop ca la bàyyi ko euh, mu nekkoon ci dëkk boobu ñuy wax kokki ci moom la feeñe mu am tawféex ci sëriñ bi ci tase gi mu taseeg mu jóg di liggéeyal yonent bi loolu nag di cax boo xam ne ku xam sëriñ bi xam ne ku jóg ñu di la yóbbu nit ñi jàpp ne ab prisonnier nga dañ jàpp mu ne asiru maal abraari xiina asiru wa danna alhuda anni hunaka asiru asiru maal abraari xiina asiru gëm gim gëm ne fa mu jëm mbég la fay jële victoire la fay jële ndam la fay jële moo tax mu teel a euh, mu teel a alerte lool demagut batale na kii ñëw ne nañ ko tudde Bachir Bachir lu mu yore mooy mbég kon loolu wane na résultat yi tukki war a am te demagut. sëñ Bachir mi ngi gane jamono gannaaw boo xamante ne sëy bi jóge na fi ba dem ci géej gi. Eh, mën naa doon ci mille cent quatre vingt ba waaye mën naa jàll xëy na it ba ci mille huit cent quatre vingt seize ba lu mu ci mën a doon daal soriwu ko waaye boo fekk na sëñ bi moom génn réew mi te sëñ bi xam ngeen ne août lañ ko àtte woon eh, le 10 août la jóge woon këram nga ca baar Baari dem Ndar def na fa ñaari weer xëy na kon out ba ak septembre ba ak octobre ca la cay nekk ba mu demee Ndakaaru yàggu fa ñett fan dafa am kon xëy na ca septembre ba ñu ba 21 septembre sax la ñu wax waaye lu mu ci mën a doon mm, bu fa nekkee 21 septembre mu jóge fa mën naa am fekkul sëñ Bassirou Gane jamono. kon Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi gane àddina 1895. tolloog bi sëriñ bi di dem ci géej gi dafa bokk ci ñi sëriñ bi batale nga xam ne ay weer la sëriñ bi am ci tukki bi mu ñëw bi mu laataa dem bokk na ci yi mu batale woon soxna Fatima du maam Jóob bu amee gan bu dee góor nañu ko tuddee Mouhamadul Bachir tudde ko yonent bi bu dee jigéen ñu tudde ko Xadijatu yàlla def na dem nañ ba ci jamono ba lépp far am ba sëñ Basiru am na son xadi am na euh, ñoom ñëpp mi ngi fi son xadi nag ñëwoon na fi waaye yàggu fi euh, bi sëñ bi nekkee njaareem fekk mu toll ci xam naa fukki at ak juróom nangam ci la euh, delluwaat ci boromam. taalibeem bu mag ba ba mu déggee loolu moom mu daal di am gan daal di ne kon Mouhamadul Bachir laa koy tuddee ndax xam naa ne moom la si mi njëkk a wax. loolu moo tax sëñ Bachirou Fall ñu tudd ko sëñ Bachirou ba noppi mu mag sëñ Bachirou ndax sëñ Ibrahima dégg gi sëñ bi moo tax mu ne ndegam bi muy wax góor la njëkk tudd xam naa ne ki muy wax góor lay doon kon nag man man daal naay tuddee ko doom te boobu sëñ ñëw ñëwagul ci zahir ñeenti fan yi maamu kootee sëñ Bassirou Gane jamono dëgg la nag wax ji bari na am na ñu ci wax ñaar fukki fan ak juróom am na lu ciy wax lu bari waaye nag nun lañuy ñuy sukkandikoo li néegum dayam jàppaloo nu ñuy sukkandikoo te soxna Marème Sill mu di soxna soxna wax na ma ne soxna Fadima am nee na ko ñeent fan yi maamu kootee sëñ Bassirou Gane jamono euh, kon xëy na bu fekkee yeneen wax am na ci itam wax yooyu bari na waaye nun ci wàllu néegu ndey sëñ Basiru li ñu jàpp mooy ñeenti fan yi ko koor ci laa fi ñëw jamono. waaw feeñ nag ci jamono boo xam ne bii bu bu jafe la nag ndax booba fekkit sëñ bi ci ci ci ci ci ci tànk yoo xam ne ni mi ngi nekk ci tànk yi ci tukki bi maanaam am na ñaari weer booba waaye eh, ku am noonu cir ci sëñ Tuubaa loolu nañ ko boole ci. du ci juddu waaye ci makaanaam la ci diggante ma way juróom sëriñ Basiiro dana mbaa di misaalum su doori laraar xelam maa di misaalam ku lasraar bi mu feeñee jamono ba toll ci dal jàng fekk sëriñ bi ci biir liggéey bi ci la ko waajuram bi di maam Cerno Ibrahim borom daarul muxti di ki sëriñ bi dénkoon njaboot gi jëlee yóbbu ko daarul animul xabir ñu gën koo xam ci ndaam sëriñ ndaam abdourahman loo moo ko dalal sëñ Bachir am tawfeex joo xam ne dafa maaseeg liggéey bi sëriñ bi dem ba ñëw bu mu nekkee ci biir tukki bi fekk na mu mat a dal ba tàmbali jàng am na benn téere bu sëriñ ma baabu gi bindulu sëñ cumbuleen si la ko bind mi nga xam ne moo nekk eh, ci la dara daramaan tey te te jamono yooyu xëy na sax cumbuleen la nekk waaye lu mu ci mën a doon mu ci moom la ko wecc koo woon ci ay am sàq eh, yóbbante ko sëriñ Touba. boobu sëriñ mi ngi maa yomba mu di ko tàggee sëriñ Adama gi boole ci jox ko addiye téere boobu sëriñ bi wëlbati téere bi def ci gannaaw téere bi addiyaale naa ko jox naa ko addiya sama doom Mouhamadul Bachir. sëñ Tuubaa ba kaamil ba demee daf ne nañ ko delloo si bu Cheikh Mouhamadou Bachir ma tey jàng nañ ko jox mu jàng ci kaamil boobu yàlla def na ca loolu Cheikh Mouhamadou Bachir jàng na ca kaamil boobu mi ngi fii fu njaareem mi ngi ci bagage yi nga xam ne mooy suñuy bagage barkeelu ci kër sëñ bi ci njaareem kon moom lañ ma sa gis ku sëñ bi jox addiya ci mboolem yoonu murit waaye ba mu tolloo ci war a jàng nag maam Thierno Birahim moo ko jëli comme ni mu ko dénkee woon ña nga xam ne ñoo doon jàng ca loxoom sëñ bi keroog bi mu fay xëyee sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fadilou booba ñoom ñu ci euh, Mbacke Baari ci kër gi euh, ak ñeneen ña nga xam ñoo fa nekkoon ku mel ne sëñ Omar Mbacke ak ñeneen booba ñoom ña maam Thierno lañ leen dénkoon kon maam Thierno gannaaw sëñ bi moo ko doon saytu bi nga xamee ne dem na ba mat a jàng te maam Thierno moo ko jël jox ko sëñ Ndaam Abdourahman Lo. moo ko daal jàng jàngal ko boobu sëriñ bi ñëw fekk ko mu toll ci xisb jooju wax laqad laqad radiyallahu anil muminin لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا sëñ bi muuñ daal di ko ne loolu de ak listixaar la ci man kon foofu yi nga toll xamee naa ci ne sama borom gërëm na sama liggéey nangu na ko loolu nag tax sëriñ bi ñeewantu ko ñeewantu gu gu gu yéeme ne sëriñ Tuubaa moom bokkut ak nit ñi ndax moom mbëggeelug doom amu ko woon da nga mu ne mahat mahabatiyal muxtaara sayidana xubbil wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi alfidaau lahu abdan qadiman lahu muskaani li sanada kon lii dal nit ñi dalu ko dafa wuuteeg ñëpp ndax lii lii dal nit muy bëgg day doomam walla muy bëgg alal wala muy bëggum koom moom nee na dañ ko far ci moom amu ko lu ko far bëggim bëgg yonente bi Abdourahmane jàngal ko di ko jàngal ba ab diir jëlee nañ ko fa jox ko sëñ Bay Jaxate as ndiir moom mu yor ko ba gannaaw bi mu tareel Alxuraan dem na it cumb leen sëñ bëggum barkeelu fa bari na fu mu jaar waaye ki am tawféex mu àggee ci loxoom daal mooy sëñ Bay Jaxate sëriñ bi moo ko ba ñëw mu ne ko wattu Mouhamadul Bachir mii alxuraan ni ma ko bëggee bu ma ko ne amee bay boo nga xam ne li nga bëgg ci man lépp am nga ko sa liggéey ci man mooy loolu sa aajo ju faju ak sa lépp mi ngi ci loolu sëñ Bay ni ngeen ko gisee pas-pasam ak taalibeem booleetul sëñ Basiiru ak dara daa bàyyi lépp rek ne ci jàngal sëñ Basiiru mooy ab liggéeyam guddi mooy ab liggéeyam bëccëg ba mu xereñee alxuraan lool. bi mu war a jàng xam-xam itam njàngum xam-xam xam-xamam. daanaka sëriñ bi moo ko ko defal ndax moo ko ko tàmbalil ba mu ba mu dëgër ba nga xam ne sëriñ bi nag maanaam amatul jot googa nga xam ne jógewoon na fi sax dem gànnaar ngir bëgg gum bëgg xam-xam rek sëriñ bi woolawaat ko mu dikk mu teg ko ci wetam far la mu doon wuti gànnaar fekk ko foofu ci sëriñ bi. yàgg na xam-xam ci ay ay kàngam ay kàngam yu bari. Eh, defe naa sax sëñ bay sëñ bay jàngalu ko waaye ñooy jamono yooyu dafa dañ rek sëñ bi dem gànnaar jàng na at dara ci sëriñ bi eh, ndax ànd nañu dem dem dem demu gànnaar ndax sëñ Bassirou xam nga mi ngi wax ci téere bi di wax ne jamono yooyu am na jamono yoo xam ne mi ngi fi sëñ bi booba dafa jàng. Eh, ki ko doon jàngal muy sëñ ma jàng sëñ ma jàng moomu nga xam ne moom moom la ñu wax ne moom faatu woon ci jamono yoo xam nga am na bis sëñ bi wax ne moom man lañu yónni woon ci bi nga xam ne diw faatu na waaw loolu boo ko seetee ci mbind ma da ko ca fekk loolu jamono yooyu moom nga fa sëñ bi kon mel na ne sëñ bi jàngal na ko ci boppam ab ab diir sëñ Bassirou doon ku ku teel a bëgg xam-xam moo tax daanaka lépp ci xam-xamam maanaam euh, ci ci ci naari gànnaar la ko jànge ndax jamono yi ñuy gëstu ci meneen baaxalim bi bi nubsa bi dañoo gëstu gëstu maanaam xamuñ kan moo ko jàngal ci nit ci ci nit ku ñuul waaw waaw bi may gëstu di def may gëstu li tëral suñu soix bi ci laa gis mu waxee ci lim ci wax wane ne wax ne nee na suñ tubaab moo ko daan jàngal mooy doomam joo xam ne jiit sëñ bi da ko yaral boppam yar bi yar moo ko yaral boppam jàngal jàngale yitkal boppam ñaar yi da ko yitteel ndax dafa fomm yoonu gànnaaram boo xam ne ba mu ñëwee ba mu ko laajee wërlu ko ba mu indi ko ko laajee dafa ne dafa bëggoon a dem jàngi. waaye ba mu demee diir bay yàggut sëñ bi ci boppam yabal ndaw ñu jëli ko. mu ñëwee mu ne ko Mouhamadul Bachir loolu la taxoon a dem gànnaar mu ne ko bëgga xam-xam mu ne ko toogal la nga fa doon wuti dina la fekk fii la fa am njëriñ lépp andi naa ko tegu ci baat mu toog di jàng nag. ci boroom xam-xam yi jege sëñ bi ndànk-ndànk waaye tawfeex ji ci am mooy bi sëñ bi nekkee njaareem mboolem xeeti naar yi yëpp fay ñëw. loolu moo tax sëñ Basiir nee na lam ca def ci saayir sama yoon ne ca baatin sama yoon nekku ci waaye lam ca def ci saayir mooy mboolem ku ma mas dégg xeemeem ko xeemeem mu jàngal ma xeemeem ma dem fi moom jàngi fa fekk na ma ci kër sëñ Tuubaa jàngal ma dara. naar yi ñetti xeet lañ. kii day ñëw di laaj si masala critique lu mu jàpp kenn xamu ko sëñ bi rek ko ci doy mu bëgg xam ba xam xam na ko déet bu di gis wax ko ci lu ko jaaxal ki ci des alal lay wut si buy dem dana yóbbu ba yóbbaale loo xam ne bokkam yëpp ci la ñuy tedd ren ba ki ci des baatin foo mënoon a toll bu di bi yéege la ñett kon ñoo daa ñëw waaye ñoom ñëpp it nag li ci ëpp dañu àndaale xam yu xóot yu xereñ yoo xam ne bëreegul Sénégal moo waral waa Sénégal daa fa dem di ko jàngi. mu la mu ci bëggoon ci xam-xam lépp. mu mu mu mu peeg ko. mu am kon ñooñu di ñëw indi seen xam-xam yooyu fañ leen di dal mu di leen fa fekk danañ am naar yoo xam ne danañ fi toog ay weer lu seet mu dem ci kenn ñii mu jàng ci ñoom bayaan ñii mu jàng ci ñoom ñii mu jàng ci ñoom mantiq ñii mu jàng ci ñoom noonu la ko defee topp leen ba naar yëpp mu ngacc li ñu am. nga ne fañ la sëñ bi na ko toogal li nga soxla di ko wuti ganaar dana la fekk fii noonu la ko fekkee fii. ni ko sëñ Abdou waxee ca waaye borom xam-xam bu ñëw maanaam addi bu ñëw balaa dem euh, faqih ñëw <laughs> waaw waaw nga xam ne moom xam borom xam-xam yépp dañoo dajoon Sëñ Tuubaa moom itam mu def yitteem yëpp ci jàng xam-xam ba yàlla def ko ci mu mujj doon ci géej xam-xam boo tudd mu doon ci géej boo boo boo tuddee fiq mu doon mu doon ci géej nga tasawuf mu doon ci géej nga ba ci ay falsafa ak yeneen ak yeneen ak yépp mu loo ci tudd géej la ci woon. bi mu xamee loolu lépp nag bokkut ak nag li ko sëñ bi solal boppam yam sëñ bi daanaka li muy xat-xat. mel ne lu koy jàngal waaye mel ne lu koy jàngal yooyu ci lay sukkandiku ba xor ko solo li nga xam nga xam ne ko ko xam xam ne lii ëpp na xam-xamu kese kese mu doon koo xam ne ku siiw la ci xam-xam ab sunni yi woon ab sawfi yi la woon ab murid la woon. mag ñi ngay dégg ñëpp war si doon diwaan naar yi mag ñi nga xam ne ñoo ko bind ñëpp kenn ko ne xam nañ def ci kër sëñ Basiru ba ci Ibnu Maalla nga xam ne kenn ëpp ko ci lu mu ci way ëpp ko ci xam-xam nga xam ne moom boo doon seet ci xam boom xam-xam yu gën a mag ci Mauritanie te lay bokk ay bayt ay bayt mu ngi fii ci ci ci kër ci kër sëñ euh, fii ci kër gi tam xam nañ ko fi bu baax a baax a baax koo fa seet rek tamit borom xam-xam ca yooyu jamono bay boo nga ne miin na sëñ Basiru sëñ Basiru miin na ko te borom xam-xam boo xam ne ñëpp nangu xam-xamam mu bind ci sëriñ bi loo xam ne bu ko defutoon yoon yëpp dana jaaxle ci sëriñ bi kon yoonu murit ñoo ko amal jukkal. Euh, Minel Bakharim rek doy na ci moom misaal ci ne koom géeju xam-xam la woon Minel Bakharim boo ko xoolee da gis ne maanaam doo maanaam xam ne sëriñ tubaa dafa mel moo ko tax a jóg waaye may ni ngay jàng lépp waaye ni ngay jàng tasawuf may ni ngay jàng euh, maanaam may ni taarix. maanaam daa daanaka booy seet maanaam xam-xam yu bari dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa ruuxu si biir xekk ma fees dell ak xekk ma itam waaw nga xam ne kon boo boo boo ci yëree tuuti rek daal nga xam ne kii moom géej la woon ci xam-xam. boo boo bëggee am xam-xam bu bu bu yaatu boo xam ne saamil lay doon ah, ci sëñ bi da ngay jël minanul baaxul xadim boo bëggee xam dara ci sëñ bi da ngay jël minanul baaxul xadim bi nga xamee ne. woy na ko noppi mag nettali ne na ma ci ron mango gi ma toog ci penc ci kër gii ci kër ci Touba Kaolack naar bi ko doon bind muy mbindum araab mi fii la toogoon di ko bind boobu ci wet gi féete gi ma féete gànnaar ñaari néegi tabaxi ban la sëñ bi si defoon benn ba ci la bi dëkk woon ba xëyee toog di ko bind mbindum arab moom mu ko bindoon. gis naa nañ naar bi moom daa nañ gis sëñ bi di toog di ko di wax naar bi bind. Ah. ci arab lay wax ak moom. ci arab lay wax ak moom muy naar bi di bind. waaw loolu arab ji moom da koo da koo da koo koo da li ñuy wax da koo da xam ndax da koo jàng ni ko ñëpp jàngee la ko la ko jàngee te it ànd ak jàng mu ànd ak coono ak dégg nag yoo xam ne kenn benn fu loxo yi yenn loxo yu mu jaar yu ko ci yërëmoon amut waaw moo tax déggin waag xam-xam baag lépp da caa ca xam-xam bu sell ba te siiw ba ak yar bu matale ba ko sëriñ bi yar taxoon na ay magam wóolu ko lool ay rakkam jël seen lépp jébbal ko jikko yu rafet yamu làmboo ak xel mu sell maa waraloon mu nekk puso buy ñaw ci mbokk gi rawatina ñu mbokkal islaam ji diggante moom sëñ Modou Moustapha moom sëñ Basiru sëñ sëñ bi ci boppam sëñ Tuubaa ci boppam moo leen booleel boppam moom moo ci def yittey booleel leen boppam sëñ Mat Lamin Jóob euh, wax na ne moom moo leen wooyi woon keroog ba ñu ñëwee it lam leen wax ak nam leen waxee Cheikh Moustapha al Karim nga xam ne moom moo doon taawub sëñ Tuubaa te gannaaw sëñ Tuubaa itam moo yor te ci nekk sëñ Tuubaa ba mu daaxaan yor mbir yi sax fekk na ñoom ñaar ñu jaxasoo lool ndax xam nga am na maam sax mu ñu bokk gannaaw bu ñu bokkee sëñ Mor Anta Sali ba am na meneen maam mu ñu bokk ndax boo dee seet sëñ Mor Moustapha soxna Aminta Lo mi ko jur eh, moom ku ñuy wax xarit maam Joob moo ko jur xarit maam moom dafa daal di lool ku ñuy wax njagey sa rek moo ko jur eh, njagey sa eh, moom itam te moo jur sëñ Modou Maam mi nga xam ne moo jur soxna xam ne moom ko daal di bokk fi saasa boo siinee na muy waxeek ñoom ndax daa xaw a sëgg moom sëñ bi waaye dafa mel ni sëñ Mourou Moussa la jubluwul dafa mel ni kon loole mu doon wax wax jooju sëñ Mourou Moussa moom nee na ba mu ca noppee nag nee dafa siggi moom sëñ bi di wax ca kaw loola nee na moom benn baat ump ma ci sëñ Mor Lamine Diop mooy wax mooy ndaw li sëñ bi wooy waxoon ne ko demal wooyul moom Mourou Moustapha ak Amadou Bachir nee na la sëñ bi si ba sëñ bi siggee la mu doon wax ak sëñ Modou Moustapha moom nee na xaw ma ca dara dégguma ca dara waaye la nga xam ne ba mu siggee nag ca loola ba mu noppee ca loola ba siggi nag da doon wax ca kaw naan ko Mouhamadul Bachir sama yoon wi dénk naa la ko bu ci dara sikk sama yoon wi dénk naa la ko bu ca dara sikk sama yoon wi dénk naa la ko bu ci dara sikk loolu moom nee fi ma toog maa ngi koy dégg. ku jàggane rafet di jëmb ci jikko ju rafet xol bu rafet xam-xam bu rafet xel mu rafet loolu yàlla joxoon. ba mboolem ay nawleem naw ko fonk ko ba lépp loo xam ne jaaxal na nit ñi ci bokk gi ci moom la ñuy ñëw ba ñëw ñëpp ñu nangul ko loolu mu doonoon puso buy ñëw ci biir bokk gi. moo tax kam njëkk am te nekku fi tamuy góor kenn ma sa am na kuy góor koo xam ne moom ak sëñ Moustapha ah, loolu dañ koy faral di laaj lool waaye kenn rek la woon sëñ Mbàkke kooku kenn jotu koo xam waaye nag kooku rek la ma sa am te kooku sëñ Tuubaa la ko tudde waaye ka ca topp di sëñ Moustapha Bachir mu teg Cheikh Moustapha Karim kon ne dégg na ni mu toppee woon sëñ Moussa sëñ Modou Moussa ni ñu taxoo woon ni ko sëñ Modou Moussa defee woon conseiller technique moom la jëloon ci doomi sëñ Tuubaa yi ci fukki nit ak ñaar ñim jëloon di con di leen di leen di diisoo ak ñoom moom Cheikh Moussa sëñ Bassirou la ci jëloon. sëñ Bassirou dafa daal di bàyyi lépp ne ci wetu sëñ mu saa di ko liggéeyal di ko muritu njël sëñ sëñ sëñ Mourou Moussa da koo ber mu soog a doon mu soog te loolu yàgg na lool ci loxoom mu soog a mu soog a beru njël ay taalibeem itam dafa dañoon ci biir daara yi sëñ Mourou Moussa lañ nekkoon kenn musul xàmmee lennam ak lenn ni sëñ Mourou Moussa. bi ñuy gas raay bi waaw bi ñu waree tabax jumaa te gas raay bi mënta ñàkk daa indi bi sama Bachir moo ji moo jiite woon liggéey bi. nga xam moo tax ñuy wax ne dox na dox na diggante Touba Touba ak Njaareem ndax dañ daane fu ñu masaan toll rek defal ko fa ab as as néeg mu nekk ca bu ko weesoo mu dox du dox dox ba foofu ñu defal ñu tuxal néeg bi yóbbu ko moo tax ñuy wax ne suñu Cheikh Mouhamed Bachir dox na Touba dox na diggante Touba ak ak Njaareem ndax mag wax na ma ne Cheikh Mouhamadou Moustapha tudd na Serigne Bachirou juróomi doom am na ku ma ko wax diggante ma Cheikh Mouhamadou Fadel ba nga xamee ne Cheikh Moustapha dem na lépp loo xam ne mënoon na ko ngir jéem a ngir sëñ Modou Sëñ Fallou mën a taxaw te kenn du ko xatal te kenn du ko coow moom baatam lam man lépp def na ko kem kàttanam euh, na ko doom euh, mooy daanaka ki ki ki ngi fi alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na fi yàgg mi ngi mi ngi njaareem Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal tudde na ko doom jox ko ko mu jar ko ba yàlla dogal mu yóbbu ko delloo si ko keroog bi ko bi sëñ Fallou yóbbu aw nit Màkka ba ko yóbbaale daf ko ne déedéet yow moom sa sa Makka ci man la nekk door a jox ko ne ko man ngeen a ànd eh, moom du warteefam sama la. Cheikh Mamadou li mu koy mag mag dafa mel ne moom sëñ Bassirou moo doonoon magam ngir jëbbal gum mu ko jëbbaloon këram ak waa këram nga xam ne léppam mook ko daan taxawul ba liñ ci xam rek am na ñaari doom yu mu ko tuddee te mën naa am ëpp ko. ma sëñ Baara moom kenn waxu ko sëñ Baara macha allah. njabootam gi yëpp góor ak jigéen dana jëbaloon sëñ Basiir. daana wax sax njabootu sëñ Baara moom amuñ si woon sago. nangu moo leen di saytu nanguwul ku leen jox ku leen ko ku leen cof nanguwul ku leen sàggane nanguwul itam ku ca def dara te nekkul te nekkul sëñ Basiir nekkul ci biir. ay rakkam it mu def leen noo xam ne doy na ci sëkk sëkk sëkk misaal rek. tudd gi mu tudd sëñ Abdul Hakim sëñ sëñ Abdoulahi borom dër bi loolu rek ne ku fonk ay rakam noonu mu defoon ci sëñ Fallu ak sëñ Modou noonu la jàppee li tàmbali sëñ ba ci sëñ Mor la sëñ Abdou borom bi léppam sëñ Basiru ko yoroon daf ko bàyyee woon boppam bu a wóor a wóor euh, lépp lu mas def day wa day day day day day ñëw ci sëñ Basiru waxtaane ko moom tàgg ko doog a dem ca la moo tax nag ñëpp dañ koo bëggoon wax dëgg yàlla ñëpp dañ koo nawloo woon moo tax fane dafaa bari ay turandoo waaw boo demee ci mbokki mbokki mi bokkal sëñ Tuubaa dañ ko bëggoon di ko tudd seen boo demee gere dañ ko bëggoon lool gën gis la fa am ci turandoo waaye feneen foo dem rek da nga fay gis turandoo yu bari lool nit ñi bëgg nit ñi bëggoon ko lool jox ko cër waaw loolu mooy waaw xam xam naa nag jikko ju rafet ji rek moo ko waraloon ak jëflante bu rafet bi. sëñ Abdou Lahad moom sëñ Bassirou rek la naaw sëñ Bassirou rek la gëm sëñ Bassirou rek la wóolu sëñ Bassirou la yaakaar. sëñ Abdou Lahad seede na ci sëñ Bassirou seede soo xam ne mosuma dégg mukk seede su rafete noonu. daa wax ne bu fekkonte ne am na koo xam ne dafay dégg sëñ Tuubaa te mosu koo gis ci bitim réew ba dégg booy ay noppam mu koy xëy ni mënta ñàkk gis sëñ Tuubaa ñëw Sénégal dag jóge fa mu nekk dagg paas ñëw Sénégal bu dikkee bu fekkul sëñ Tuubaa sëñ Abdoulaye nee bu sañoon ci sëñ Bassirou lay jëkk loolu di seede su rëy di seede su am solo soo xam ne euh, benn seede bu mag boobu amut dama dama dama ko bëgg lool ci loolu ba tax na waxtu ne dama koy nettali sëñ Abdou Xaadir rek ñoom ñoom rek suñ ñi fi nekkoon ñëpp suñ so ku ci ne xaritam la woon suñ Saali ñoom suñ Murtala ku ci ne xaritam la woon waaw dañ ko daan seeti fu ñu toll tiiba gis nga suñ so bi nga xam ne sax daawul dox dégg nga yoonam na booba fekk na bu bàyyi tukki sax waaye daa xëy xëy rek nam ma sëñ Basiiru daal di jékki-jékki rek ñëw tiib ba sëñ Basiiru biñ ko biñ ko yeggalee dana ah xanaa dañoo jaawale sëñ wu la sa bàyyi wu na tukki di Saaliwu la ah, dafa mel ne moom de man nekk egsi bi mu egsee ma ne ko ah, mbaa jàmm la mbaa jàmm la dama bett lool sax ma ne ko xanaa ah, la bu mënatumaa toog rek moo tax ma ñëw mu ne ko ah, waaye yow bul demati fenn yow ñëpp la war a fekki ndax lii ñun ñëpp suñ bi lii leen digaloon di toog subaa rek di jàngale alxuraan lii la bëggoon ndegam ñun ñëpp mënuñu ko na te yaa ngi ci yow seetee te kenn toogal ñëpp di la seet si njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp alhamdulilahi rabbil alamin eh, njabootu boppam gi néew na ko ko ci tuddewul doom jox ko ko mu yar ko wala nga tuddee ko ci doom donte da nga ko yaral sa bopp ñoom ñëpp daal jaxasoo woon naa ak ñoom amoon naa ak ñoom dama war a ànd ak ñoom ànd na ko ñoom war a mel ñu am ñoom yu mag yi nga xam ne moo ko tàmbalee ci Cheikh Ibrahima Fall laa koy tàmbalee ak mboolem kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi jaar ci njabootu Sëñ Tuubaa di ay taalibeem ak fu ñu fi mën a nekk ci kaw yoon wi sëñ Bassirou jaxasoo woon naa ak ñoom séddoon nañ ko cër moom itam séddoon nañ leen cër boo xam ne wax dëgg yàlla du du du du bu bu bu du cër bu woyof waaye yi ci biir bokk gi biir diini lislaam ji sax yoonu murit jëloon nañ ko mu doon defarkat boo xam ne boo amee fu ab taal di tàkk moom lañ yabal mu dem fay ko ci biir tarixa yi ci des ba loolu ñi ci des xam na histoire yi ci am yëpp fu ne dem na di defaree te ñëpp nangul ko loolu lu mu defar mu defaru Basiru bari bari xam-xam ay jikkoom waaw waaw waaw waaw moom bési doom daanaka li ñu wax rek ñu ngi doon dugg ci jikko yi xam naa ne moom ay jikko li mooy jikkoom moom xam naa daan naqare wax ndax moom daal ma des naa wax ne maanaam jikkoom daal mooy alxuraan comme ni ko dañ ko eh, <laughs> eh, waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal da ko waxee naa si waxee woon daal daanaka ma des na ko wax ci moom waaw mahat mahabati al muxtaar sayidina xubbul marani wal ahlina wal walada bëgg yonent bi ak jëf ay ay ay ay jëfam ak xeñtu mbooram rek mooy doon soxlaam loolu moo tax moom day daal di dugg ca loola kon ko Quraan Sëñ Tuubaa lépp loo wax te te te te te te lépp loo wax rek lépp loo wax rek te te waxoo alquran waxoo yonent bi soxlawul ca wax ja daal ah, kooku nag moo yar Sëñ Basiiru <laughs> ci loolu la ko yare moo ko yar yar ko ci loolu sottandiku nag ci moom def ko it mel li mu bëgg ci moom. sëñ Bassirou moo tax amul sago ci lu baax. ku ku méttee métt la. lii jamono yi def lépp ànd ci dara. kon kon yar na ko boo yaral na ko boppam jaral jàngalal na ko boppam. yar googu mu ko yaral boppam sax moo tax waa kër Sëñ Tuubaa yi ñu ci bari seeni doom tudd nañ ko ko jox ko ko mu yaral leen ko ngir barkeeloo ko ca loolee. loolu beneen cër la ci diggante moom ak i doomi baayam ngir cër ba ko sëñ juróom joxoon ngir waxtu wi mu ñëw ci jamono ak fi mu fekk sëñ bi. moom moom moom moom moom moom mu bëgg mooy saa su ne ñu delloo yépp ca cosaan ni ñu yor jikko yu rafet te xam li war a xam mar ko ci seen i seen i biir lañuy la ñuy defar ba noppi. Mm. doo ñëw seeni comportement ci kaw door a ñëw nag ci seeni seeni seen waa bitti li nga xam ne moom la bitti moom mooy bitti doomu aadama bi nga xam ne amul sago ci lenn yar yar mi ñuy wax ni nii ci sago du doomam du du du du rakk du kenn koo xam ne sëñ Basiru am na sago ci sa yar. waxtu boo xamee ne sëriñ Basiru nag ñëwaat na fii ñu defal ko fi ngan ba ngan nga jeex. soo maam jur sama ndey maam mu jigéen fii la ñu di ko sëtu wiraan mu ne waxtu waxoon sëñ bi ñaanal na la ba nga xam ne yeewee ko ba dugg ci oto bi oto bi day day yi ba fii sëñ bi moo néegam a ngi ba oto bi day dafa ba ci day dafa day tuuti mu daal di mu ne sëñ bi taxal mu taxal Babacar jege jege seet sëñ ba bay ne ñukk ñukk ñukk ba ñëw ba ñëw lam koy njëkk wala lam koy mujj wax mooy sëñ bay Babacar di leen xam xitte tey jeex lu baax jaam bu nekk la nga jeex ngay for di ko wax day leen xam hitte tey jeex lu baax jaam bu nekk la nga jeex ngay for su ko def soog a oto ba soog a départ. yar moom maanaam xaw ma ko mën a waxee fonk na ko fonk goo xam ne moom la jiital ci lépp te ñàkk ñàkk jaar ci yoon woowu mu bëgg neexalu ci kenn. Hmm. amul doom amul rakk amul jarbaat amul dong amul dara àndu ci kenn neexalu ci kenn hmm. mënu ci amu ci sax sago moom noonu la meloon noonu la meloon ni sëñ Tuubaa meloon nga xam ne kenn mënta wax ak moom daanaka loo wax rek boo boo sàgganee ab safaan lay doon sëñ Basiir loolu doon na ko ci sëñ Tuubaa doon na ko sëñ Tuubaa ndax moo ko yar moo ko sottandiku ci moom li ko soob mu wëlbatiku nag bëgg ak ju bëgg lu baax doomam sax bu defee lu mu war a def la la muy teg ñëpp ci sanction moom la koy teg amul kenn ci àdduna koo xam ne nit ñi mën nañoo rëyal jëmmam wala ñu réyal maqaamam ba ak àgg sëñ Bachirou mu gis mu def loo xam ne bokkut ak la mu war a def tadu la mu ca war a def dana ko def. kenn la woon koo xam ne maanaam li ci gën a am sol rek mooy xam nga nit ku bë nit ku bëgg nit xam nga am solo maanaam nit ku bëgg nit rek am yërmande bëgg nit rek boo ko xasee def daa nekk loolu day day day. day day day làmb jikko yu bari ndax nit ki boo ko xasee bëgg rek yërëm ko rek lu baax rek nga koy defal waaw te doo bëgg lenn lu metti dal ko waaw loolu nag moo daloon sëñ Basiru sëñ Basiru dafa amoon yërmande te bëgg nit dañ mun taxaa bi nee na am na bis boo xam ne alaaji may sekk dafa toog ci moom di waxtaan ak moom di di di ko tagg di ko di ko seeral sëñ Basiru waaye nee na ba mu seeree ba àggal nee na daf ma ne eh, loolu muy wax bu dee dëgg fexeel mun na ci yow hmm. dul dëgg fexeel mu nekk ci fexeel mu hmm. fexeel ñëw ci yow dëgg nag fexeel mu sax nee na loolu la ca duggee ci wax ji ci koo xam ne dañuy jël sa doom di ko tagg di ko yëkkati di ko di ko taggal ay ay garaat ndax jëmmi sëñ Tuubaa boo koy xaaj ak aku nekkinam fii ñaar rek la lu jiitu géej gi a ak géej gi gannaaw géej gi te sëñ Basiru mi ngi feeñ ci ci ci digg bi daa mel ne kon li naan xayrul umuur yi aw satoo te sëti na ko <laughs> waaw te sëti na ko xayrul umuur aw satoo sëñ Basiru daal boo bëggoon a xam kan mooy sëñ Basiru daal da nga naan mooy yoon bi mooy yoon bi ndax yoon wi kat bu ñu waxee yoon wi lépp mooy géej gi te sëñ Basiru mooy géej gi yoon wi bu ñu waxoon yoon wi mënoo ci génn njariñ te sëñ Basiru mooy njariñ <laughs> mooy ki nga xam ne magam yëpp dañ koo doyloo ci seen lépp rakam yëpp bëgg ko def ko kilifa yoonu murid yëpp ak seex yëpp it bëgg ko jullit yëpp it doyloo ko doyloo am xelam. makaarimu axlaax adabul mardi jikko ju rafet jàng ak xam-xam ak tarbiya loolu moom kafu ci réew ci moo doon moo dundam kon daal alhamdulilahi rabbil alamin buñ ne yonent bi xuluqul quran wàll na ci sëñ Tuubaa lam ci war a wàll waaye alhamdulilah sëñ mii nga ne moom moo nu yaral sëñ Basiru itam am na ci wàll. bii bis la sëriñ Tuuba rañaane daaru jëndar murid yi ñëpp bokk waaru ci ama jëy sin da mooy leleem ba le taxoon mu bab saayir sak batin ba fajar di rakki gàmmu bis bal tene fukki fan ak ñaar ma ak naa wax yëpp yëpp àndandoo di yuuxu góor ak jigéen ñi daw ñëlee waaxu bi bis la seex basiiru gédde àdduna ngir bon ngaak war yamu làmb ëpp na war na dameer yaak te njaag jalaaw ya war na dage ak waa doola yaa kàngam ya war na xulamaa ya ginaa rasool war na waroon ya ngir yëb leen ko wóolu banaaw ginnaaw sadiiqu ak sayyidil amamay faaruuqu yor na ma xilaafa gi def